ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. ndekki li yi. Mbacke jërëjëf ñu ngi lay ziar xam naa ne tey moom ki ñu àndal moom waaw eh, vraiment tey de ah, moom mooy kër gi la maison doy na waar de waaw def ceeg sotti ci la waaye nag indi nga gan gu mat gan de <laughs> xool ko dafa ñàngal nag eh, man dafa aj gardam man de man de xaw ma nu mu fa demee noonu bàyyi bàyyi ma bàyyi ma jox ko micro sànq kii ko centré ko mu mu nuyoo c'est que man fidèle auditeur la moo tax gis nga di jëwaate <laughs> waaw di nga war a bàyyi di wax ci ginnaaw nit ñi ah bon bu ñu jàkkaarloo mais mais li fi jaar yi dégg naa ko di mais fii kan li fi jaar li fi jaar fan yii. Ah, bu dee con contentieux de. gis nga Cissé. Eh. gis nga Cissé. am na ñoo xam seen fii di nee na Sénégal man la bay di bi bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas jërëjëf jërëjëfati bay di vidéo bu bees 98.5 le choix de la différence la première radio d'information du Sénégal bienvenue à tous ci ndekki li première de Sud vous avez fait le bon ñi nekk Dakar waane itam biir Sénégal puisqu'on le sait tous Dakar n'est pas le Sénégal jaa ngeen jëf à vous qui nous suivez sur nos plateformes rawatina jamono ji ñu ngi nekk en direct ci YouTube ak Facebook Sud FM Sen Radio jaajëfal leen bu baax a baax ak amati mbégte vous le savez c'est toujours un plaisir pour moi de vous servir à travers votre émission préférée ndekki li émission nandite nga xam ne du ma ci wéet jamais bien entendu bu weesoo yéen ñëpp ñi ñuy suivre ci àdduna bi yëpp maa ngi ak seen soppe Serigne Mbacke Sylla aka SMS SMS bismillah noo def. tubarkalla maa ngi sant bu baax euh, Sokola <laughs> maa ngi lay nuyu di rek auditrice yi. boobu namoon naa ko ci sama papa. waaw sal euh, Oustaz Alioune Sall. waaw euh, naa jeex na ndax ñëw na. ah ñëw na nii peut-être ah. euh, donc na ñu ndékki ngeen ba pare <laughs> su ma ñëwee danaa ma naka mu ndékki ngeen ba noppi. <laughs> macha allah papa ñu ngi lay bu baax a baax a baax rawatina ci weeru koor bi ñu jëm papa oustaz Alioune Sall nga xam ne Sénégal dañ koy bëggee lu wér et di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax Mbacke jërëjëf ñu ngi lay ziyaar yaakaar xam naa ne tey moom ki ñu àndal moom waaw vraiment eh? tey de ah moom mooy kër gi la maison doy na waar de waaw def ceeg sotti ci la <laughs> waaye nag indi nga gan gu mat gan de <laughs> ko dafa ñàngal nag hmm? man <laughs> dafa aj gardam man de man de xaw ma nu mu fa demee noonu bàyyi bàyyi ma bàyyi ma jox ko micro sànq kii ko centré ko mu mu nuyoo c'est que man fidèle auditeur la moo tax gis nga di jëwaate li nga war a bàyyi di wax ci ginnaaw nit ñi ah bon bu ñu jàkkaarloo mais mais li fi jaar yi dégg naa ko di mais fii kan li fi jaar fan yi li fi jaar fan yi ah, bu dee con contentieux de. gis nga Cissé. Eh. gis nga Cissé. am na fi di nee na tëf. treizième siècle Cissé. waaw treizième siècle. avec les Bérétés. avec en pays soninké xam nañu Bérétés ñun ñoo taxawal l'islam na l'empire du Mandé. est bi ñu ko taxawalee. Hmm. ci jaamaarloo ba taxawal ko. Hmm. loolu moo indi ñu naan Cissé Mandi Mori. dégg loolu xanaa Touré Mandi Mori. Cissé Mandi Mori. Touré ci ginnaaw Cissé lay topp. ah d'accord eh. Cissé bu ñu nee Cissé Mandi Mori bu <laughs> ngeen ko lijjantee Touré Cissé bu ñu nee Cissé Mandi Mori ñu teg ci ak Karanta Mori Amankaram Mori. dégg loolu mooy bu jàngee borom xam-xam la. bu jàngul borom xam-xam la ndax hmm. dañ ko koo sol. d'accord loolu mooy seen cosaan. bi mu ñëwee ci yéen nag lu ci indi eh, ngaari ji xam nga man néew ma seen cosaan baaxut bu ngeen doore baax na jàmbaar ngeen woon mais nag mais nag finalement am na lu fi jaar ba ñaan leen siise ngaari njarmeew njarmeew bi ñoom ñoo ko yàq <laughs> lu leen indi nag ngeen di njarmeew ak njari nangam loolu ñu fàttali mbokk yi ñi ko ñi ko ñi ko raté woon parce que te bu ngeen duggee sax ci TikTok bi mu ngi fay mu ngi fay def feu et flamme mooy ba Mbacke si la ne. Euh, euh, voilà euh, loo waxati ci. góor ga Cissé moo fanaan ci moo doon dox réer. <laughs> waaw fanaan ci pël ga. <laughs> pël ga di ko ganale mu sàcc nag wa <laughs> léegi nag bi doom bi pël bi ñëwee ndeysaan ñëw xool gisul nag wi mu ñëw ne baaba mu ne ko eey mu ne ko Cissé yaxi ngaari yaxi léegi nag ñu naan kenn gisu fi Cissé kenn gisu fi ngaari nag wi lañ tudde ngaari léegi far nag ñi boole leen ko ñu naan Cissé Cissé yaxi xam nga xam nga dañ koy tudd suñu papa suñu suñu kilifa gu baax léegi. waaw Aliou Sall ñu ngi koy bu baax. walaay mën di nekk ñu ngi koy ziar xam naa ne mu ngi ñuy teewlu wala mu dabuñu. walaay dafa am benn boo xam ne ba mu fi nettali ba léegi. sama xel da ciy nekk. mu ne till dafa ànd ak doomam. ñuy dem. ñuy gàddaay di dem. ndeysaan nee na ñu doxa doxa doxa dox ba jant bi so. till bu ndaw bi ne waa yaay waa <laughs> egg guy fu <laughs> mu ne ko moom man damaa xam fu sax. <laughs> nga xam ne dañuy dox te jëmuñu fenn. voilà. mu ne ko waa egg guñ mu ne ko waa damaa xam fu ñu jëm sax xam la egg goo de ba ba ba ñun foofu rek. waaw ñun foofu lañ toll ci bu dee bu dee ne bu dee fi mu nekk foofu la toll. kon yéeme na xamuñu fu ñu jëm dañuy dox rek. kon yéeme na torop ah mbokk yi kon kon waaw terminus na de xaw ma. Ah, terminus. <laughs> doy na mbokk yi euh, fàttali ne voilà exceptionnellement euh, ñu ngeeg euh, Mbacke Sylla waaye itam ñu Ablaye Cissé lu mu soxla mu dugg tuuti Ablaye eh, ñu ne nga def nii tuuti c'est waaw micro bi aussi. non c'est que Mbacké Sylla moo moo moo dox ci yii. affaire la moo dox ci yii micro baax na noonu. mooy baax na cadre nga ma bu baax. waaw <laughs> yaa ngi baax yaa ngi baax. yaa ngi baax eh, Ablaye yéen a ngi eh, yéen a ngi góor studio na de. macha macha allah quand même a ngi ci de. mais quand waaw non yéen ngi ci ça va. mais Ablaye micro yi xawal lemu nii bien uh-huh. macha allah macha allah sant yàlla. booy lumière bi ci man nag na nga ko kii yaa. Ah. <laughs> waaw Ablaye Ablaye bàyyi ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki auditeurs yi vite fait laata ñoo dugg ci sujet bi. am nga gan <laughs> maa ngi maa ngi nuyu est ma def ko émission làmb wala. déedéet demal demal ñu sant waaw. <laughs> maa ngi nuyu maa ngi nuyu sama ñaari waajur <laughs> waa koñ ba. terre de kay Mbour laa jógee. non non non pour être sérieux vraiment c'est un très grand plaisir Nicolas nekk fii. xam nga yow moom saa yi boo ma yëkkati damay sawar léeg-léeg sax ma romb fii. xawoon cokki cokki mu dugal ma fi ma ne ko sañu maa bañ. c'est toujours un plaisir. te wax dëgg fa yàlla ci auditeurs yi laa bokk. amul lu ma fi rëcc nag surtout ci waxtu wi. ndekki lii dama dégg nga naan ko léegi SMS mais man MNM laa gën a bëgg. ah MNM MNM. ah MNM kay MNM mooy lan. MNM si moom la ay bonbon ay bonbon yu neex la. bonbon bu tudd MNM. yu am chocolat ci biir waa xam na yooyu. am couleur yu bëri nag voilà exactement. vraiment maa ngi leen di sant. MNM gërëm am mbégte bu rëy. ñëw teew fii. Mbacke Sylla ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax sant bi la rek waaye nag euh, wax dëgg fa yàlla borom mbaax nga suñu waay nga <laughs> nag ñu am koo xam ne dañu ko bokk man ak moom dëgg la waaw koo xam ne nii cheikh bi nañu wax cheikh bi bi waaw waaw cheikh bi moom ku baax la mm-hmm. fan yi nag damaa jóge tukki wax dëgg bis bi ma ñëwee mooy bis bi dëkk bi xawee jaxasoo waaw xam nga moom mu nga ca barab bële mu nga ca boor bële moom ma jël nag wax dëgg teral ma ma dallu ba dal waaw soo faa jóge far fàtte fa samay samay lonet kon seex bi dencal ma lonet mais comme dawalu ma woon parce que daf maa jox chauffeur mu yóbbu ma moo dama fàtte samay lonet d'accord waaye xéewal it mën naa tax nga fàtte say lonet ndeysaan wallaay loolu loolu it am na ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ndekki li émission naandite yi xam nga comme temps bi dafay gaaw torop ci waxtu wi euh, te li ñu war a waxtaan waxtaane am na solo lool damay bàyyi d'abord laata maa ñëw ci une Sud Quotidien jour Ablaye Cissé dafa am foo jógee léegi léegi euh, ma bàyyi la nga nga ñëw ci farata boobu après ñu ñëw ci. ndeysaan waaw dañu tey woon taxawu suñu mbokk mii di Pala Samb. nga xam ne moo nekkoon maire Fann Point e. génn àddina démb. vraiment jullit yi taxaw nañu ko mbokk yi taxaw nañu ko. te protocole bi ni mu demee rek. wane na jëmm Pala Samb. ndax xam nga léeg-léeg protocole levée sax mën na diis metti mm. waaye ni mu dundee. noonu la wone sax ci taxawu bi ndax taxawu bi yàgguñu lu ñu kenn bañ nañ ko ba mbokk yi dañoo ne nañu jël yóbbu ca jàkka ji ca sëg ya fa la ñu koy jullee donc morgu fan protocole bi tardé luñu sax te pas la jëmmam noonu la woon ndax bu ñu la nee maire Fann Point E hmm. Fann Point E bokk na ci commune yi nga xam ne ni ñoo gën a riche hmm. boo boo ci génnee commune Plateau hmm. bokk na ci communes yi gën a résidentielle communes yi gën a am barke ci réew mi moom mu nekkoon maire bi nekkoon ko nekkaat ko gañu élection yi mujj mais Palla Samb ñu bari xàmmewuñu jëmm ji te loolu dafa raar ci kujje politique gi li tax xàmmewuñu jëmm ji boolewul dara ak wax te loolu seede la lu dëggu la lu fi nekk la jotewul ak ànd ak moom wala bañ a ànd ak moom mhm. campagne sax campagne sax doo ko dégg mu yëkkati ci kàddu bay sax waxante wax ñu ñaaw te li la ko yoon mooy fi mu bokk paala ci kaawu Xalifa Sall la bokk bu gorewul woon xëy na fàqoon na yàgg na pourtant fa la nekk gañe fa élection gañewaat élection te pourtant commune bi mu nekk ca la Abdou Karim a nekk ñu doon xëccoo Malick Diop nekkoon na maire point yo e. mhm. ñoom ñëpp mu taxañ leen ci waxin mhm. gañe leen li koy wane rek mooy ci dundam dafa nekkoon ak nit ñi. jaxasoo woon ak nit ñi. Hmm. te amoon nag taxawaay ci yitte askan wi. Hmm. ñi ko gënoon a xam. Hmm. mooy ñaari émission yooyu nga xam ne bu fee ak bu fee. yooyu jarul ñu leen di waaye ñu koy xalaas ak beneen bi. ñooñu ñoo leen gën a xam parce que gis nga dañu doon def ay cas. cas bu ñu ne nii rek. mu jaar ci suuf te ñooñu seedeel nañ ko seede bu rafet. lu ma doon def ci jàng bari ñu koy ñaanal loolu yëpp. gunge ko ci fa nga xam ne nii fa lay dem. taxawu nañu ko ñu ngi koy denc ci jamono ji parce que ci morgue bi ñu defee levée di corps bi rek man comme dama amoon jotaay bi mu ñëw fii waaye nag. Hmm. ñaanal nañu ko te yal na ko yàlla. teeroo ak euh, yiw. amiin jërëjëf jërëjëf euh, euh, Ablaye wax ci am na solo. daf naa hmm. yóbbaale nañu. walaay yóbbaale nañu am njàng rek la xam nga ah. àdduna lépp am njàng la ñu ko wax. est-ce xam nga li may nekk journaliste yëpp wax dëgg fa yàlla te xam naa ni xam ne am naa jaar jaar musuma ne jaxaran ak Palla Samb moom wallahi musuma koo interview hmm. musuma jàkkaarloog moom musuma giseeg moom ni man ak moom rek sax même ci hmm. dans le liggéey parce que bariwul woon sax lu muy def ay interview wala muy ñëw ci ay émission hmm. waaye nag ci taarix xam naa histoire waaw seede bi baax na dana tax nit góor góorlu ndax àdduna gannaaw lépp njàng la lu sax amu fi eh, olofay wax ne tey yow la ëllëg sa moroom demal maa ngi ñëw la moom am na wu rafet ndax politique moom faatu Euh, bari na ñoo xamante ne bu ñu dund sax léeg-léeg ñu xewle dara ñu seen archive yoo xam ne duñ ci nekk à l'aise rawatina ku faatu mën a am woy wu rafet woowu te noonu mu ko amee Ablaye wax ko ci milieu hmm. noonu la ko amee ci ci cadre sëriñam hmm. maa boo xamante ni da ciy wax yu mel noonu hmm. di wax nañ waajal ndogu yi nañ def nàngam nga xamante ne nit la woon daal koo xam ne borom pas-pas la yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko euh, yal na gis yonent bi ci lu gaaw yal na bàmmeel nekk noflaayam ndax réew mi bari nay coona Serigne Mbacké Sylla justement bi ngay wax loolee euh, puisque ñu ngi en direct ci YouTube bi réaction yi am na ci ku ci bind mu ngi tudd euh, Mamadou Tall n'est pas là un vrai Baye Fall. Mm. donc loolu def na euh, résumé na yëpp ñu ngi leen di sant moderne ngi na kon ah. tablette bi yaa ngi ah, ci connecté vraiment <laughs> macha allah macha allah vraiment kii kii kii yow kii Ablaye Cissé évolution évolution Sud FM nga nekk nii gis nga gis ni gis nga ni ñu yéegee ca kaw nekkatul Sud Mbege de quand <laughs> <laughs> lay lan bii <laughs> di njëkk di xurbege la woon. lay si terre li émission numéro 1 de Sud FM première radio d'information du Sénégal une fois n'est pas coutume dirait Mbacké Sylla la une de la troisième candidature face au quotidien français L'Express en quête de sésame ainsi titre Sud Quotidien à sa une du jour gannaaw bi président de la république accordé euh, journal au quotidien français l'Express benn interview bu gudd wax ci lu bëri euh, démb euh, média yi moom la ñu xëyee justement foofu laay duggee ak yow Ablaye Cissé naka nga jàngatee sorti président Macky Sall ci quotidien l'Express Nicolas xam nga léegi nekkatul sax débat di wax nii président dafa dem ci média international wax fa mbirum biir réew mi parce que média internationaux yi soo fa daan dem peut-être ci ay problématique gu actualité internationale comme bi mu demee Ukraine comprendre nañ mu def interview France 24 RFI mais ak fit réew mi toll nii tolluwaay bi ngay wax ci loo xam ne ñun la concerné waxee ko bitim réew daawul am wala du buy amit du mm-hmm. mais dans le fond cette interview c'est une Mm. dans le fond interview bi ci loo ci xelli lu gàtt rek musiba la parce que ñaar wa ilaa am nañu ko xelal ñooñu moom zéro wa ilaa xelaluñu ko mu doy xelu boppam mais peut-être gëstuwul la mu waroon wax ci interview ba mm. parce que li mu ci wax mm. boo julee bu jukkee benn parti bi rek ci mandat wax na yu bëri ah. wax na mhm. ci yu bëri. wax na ci wàllu droit liberté ak yooyu. mën nañ cee ñëw mais boo jëppee bi nga xam ne moo gën a fës ci wàllu mandat bi. Mm. président Macky Sall lu mu wax. mu ne sur le plan du droit réglé na ok bokk ko nangulee. <laughs> mu ne li ci des position mën naa varier en fonction de situation bi. <laughs> lan nga ciy dégg. Mm. lan rek nga ci mën a dégg. Mm. bu nooyee ma dem bu dëgëree xëy na te loolu c'est un boo xam ne c'est une catastrophe ak fi mi toll. parce que moom mooy incité bu fekkee ni ña bëgg a jàkkaarloog moom bëgg nañoo jàkkaarlook moom moom moo leen di sax jox raison pour ñu gën a dëgëral. pour que situation wala contexte tax mu dellu ginnaaw. parce que li mu def nii moo gën a grave sax nii wii nii non ba. parce que def na pas quand même vers la candidature tey. teg na pas la candidature parce que nee na juridiquement réglé na ko mhm. le problème ne se pose pas donc def na un pas génn na ci niiw yi ni ba mhm. pas bi mu teg nag mooy bon maa ngi xool bu yangee ma dem bu dëgëree xëy na parce que ci loolu rek la mën a wékku ci boo déggee li nga xam ni wax na ko en fonction de la situation mm-hmm. Mm-hmm. loolu rek la du leneen parce que du situation économique mm-hmm. du situation <laughs> politique mais situation crise ak tension la ci la sukkandiku dinañ ah. dinañ ñëwaat sax ci eh, eh, interview bi léegi léegi euh, dem suma xel dafa dem ci bi Ablaye Cissé di wax xam nga mës nañ fi wax répété ko ak Maodo Faye lu bëri bëri Maodo fay ne dafa jàpp ne président Macky Sall du présenté du présenté du présenté ma ne ko Euh, lii événement yi mujjee xew yëpp ngay gis ñiy jege Macky Sall yëpp di insister sur le fait que dafay dem dafay dem dafay dem waxoon naa ne ñii bu ñu sañee wax lii dafa fekk ne dañ leen ko waxloo ne leen dem leen sur le comme li ngay wax teste dem leen sur le terrain bu nooyee ma dem bu dëgëree nag ma bàyyi. Mm. donc c'est c'est euh, def naa sonde yi mu doon sonde dans instant bi muy ngi commencé di di jur li muy kii li Ablaye Cissé di wax. Mm-hmm. nan nga jàngatee boobee. waaw moom kay jàngat yu doy rek nga ciy am léeg sax doo xam yan baat nga war a jëfandikoo. ndax bu fekkonte ne nit day am betteel am na ñoo xamante ne buñ ko déggee dañ naan am naa mbetteel hmm. ndax doonul ne tey la ciy door a wax xam nga koo xam ne dangaa toog wax ko wax naa ko fii léeb na ko sax kàll ko ba ci ay julli it ngir wane ne jeexal naa bii mooy sama bu mujj bii mooy sama bu nàngam nit ku mel noonu taxawaat doonaat jëmmi nit ku nite jàkkaarloo waat ak ñun naan léegi man li may wax day war yee du war yée bu ñu ca àggee di lim limal léegi loolu ku koy dégg te xamoon kàddu ni mu amee solo ci nit da nga ci doon nawee nit da ngay am dangay am mbetteel da ngay da ngay rus da ngay da ngay gëlëm ndax doo xamati fan ngay taxaw jàpp naa ne xëy na ji mu ñu yóbbee nga xamante ne xamuñu ba xam dañuy toog wala taxaw loolu mënoon naa ñàkk ndax loolu leeroon na ba noppi boo fàttalikoo ca euh, maître Abdoulaye Wade lañ tàmbale woon a wax troisième mandat ya ca aju ba xeex ca ba ñëpp tëdd na laaj moom mu ñëw falu euh, defaat ab référendum indiwaat ay coppat lu man di xew ci diggante bi rek ñun beneen problème lañu waroon am nëga ni fii waaye du problème mu troisième mandat ak ñàkk doon troisième mandat léegi nag li ñu indil problème bi mm. euh, euh, loolu bu ñu koy xool yu baree bari la man nag euh, bi ma déggee sax ñu ne président wax na dama yaakaaroon ne waxut ak ñun ndax laaj bi ñun ñoo ko moom ñun Sénégal ñoo ko moom maanaam toogoon fii am fitu jàkkaarloo ñun wax ko ci wolof yu leer paa yi dégg ko maire yi dégg ko kenn du leen ko tekkil defe naa loolu mooy li nga xamante ne moo nekkoon ak honnête moo nekkoon li nga xamante ne mooy mooy ak dëggu dëggantaan njaay waaye dem ba fële làkk ko ci tubaab ñu tekki ko ab laay bu waxee ne man nii laa ko déggee kii ne ko man déggewuma ko noonu nii laa ko déggee kii ne lii la bëgg a wax kii ne waxut lii kii ne nangam kii ne nangam loolu gëlëm loo saw askan la te njiit lu bëgg saw askan ni ci jàmm doo leen gëlëmloo booy wax ak ñoom da leen di wax wax ju leer joo xam ne ku làmb daj ko mm. loolu mooy benn bi beneen bi ci des bu nee bu nee réglé nañ ko ci droit it mm. wax dëgg yàlla moom it réglé woon na ko ci kàddoom ni mu leere ci droit noonu la mm. leere ci kàddoom que ne xanaa kay day ñëw ne kon maa waxoon waxeet wala mu xool moom neneen nu mu àbbee beneen baat bu muy waxee maa waxoon waxeet bu nooyee ma dem bu dëgëree ma toog bu fekkee loolu lañ ci déggee mooy kon ci mi ngi aju ci seenu njàmbaar wala seenu kii maanaam manifester yi ngeen di manifester may jàpp di tëj. Mm. wala may dóor wala may nangam wala ngay dellu ginnaaw wala ngeen ne maanaam jàmm gën troisième mandat ba mu nooy. Mm. bu boobaa danaa dem bu dëgëree nag mën na maa dellu ginnaaw loolu itam. déggin la woo xamante ne nii. ala kulli xaal kàddu daal euh, moo tàmbalee ñàkk solo ci kilifa. Mm. te loolu nag baaxut ci aw askan. jërëjëf Serigne si la euh, Jean-Charles Biagui ci Sud Quotidien euh, enseignant chercheur en sciences politiques à l'UCAD mu ngi ci addu waane itam le grand Momar Diong journaliste et analyste politique ñu koy nuyu au passage euh, Mbacké dafay wax kàddu euh, Ablaye Cissé euh, est-ce que sénégalais yi comprendre nañ. politicien dëgg-dëgg parce qu'à chaque fois on revient sur la parole donnée <laughs> maanaam kàddu gi nga waxoon kàddu gi nga waxoon mais est-ce que politicien ak kàddu aussi maanaam respecté kàddu ñoo ànd <laughs> ça aussi that is c'est une question là oui c'est que askan wi dañoo raw politicien yi hmm. politiciens yi ñoo nekkul au niveau de leur peuple hmm. te souvent dañuy yaakaar ni ñu ngi caytu askan wi mais askan wi daf leen a raw hmm. soxole président Wade ni mu fi jógee nga xam ni askan wi raw na politiciens yi li nga xam ne moom la ñuy dund parce que moo yoroon lépp moo yoroon doole yoroon pouvoir yoroon administration gis nga ni ko président Macky Sall ci perception yoree tey hmm. noonu la ko président Abdoulaye Wade yoree woon ni ñu njortee ni président Macky Sall justice bi li mu bëgg la koy defal hmm. noonu la meloon ci président Abdoulaye Wade nu ko raw la meloon sous Abdou Diouf en 2000 da nga daan ne waa fan la ñu war a mën a jaar ba bu ñu wàññee xob yi ba fa ñu koy signé du ñu ko soppi parce que fépp. Mhm. li fi nekk mën nañ ko kar ñoom askan wi. ñoo jiitu xel politiciens yi politicien daf dafa naïf hmm. lu ci bari nag li ko waral mooy hmm. dañuy sawar déglu ñi nga xam ne nii ñoo leen naan yaa ko yor hmm. président Macky Sall xoolal nanguwu la sax dégg ku ko ne woon non troisième mandat bul ci dem la preuve ña ko xaw a junj ca jamono da leen a njëkk faxas bu ñu demee jamono di dox li nga wax léegi c'est très important. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy bàkk troisième mandat bi dañ leen koo sol. Mm-hmm. dañ leen koo daganalal. Mm-hmm. maanaam lâcher de chevaux. tout à moo leen moo leen bàyyi. ñu dem ci. mais loolu yëpp xëy na. maanaam bu ngeen bu ngeen bëggee ma dem. sonde la à vous de sonde à vous de non non non non président Macky Sall du du yóbbante kenn. Mm. du bu ngeen bëggee ma dem de. Mm. déedéet. nag lan la. damay dem la léegi nag tasaare leen ko. ok non président Macky Sall du yóbbante kenn ay mbiram. ay bu ngeen bëggee def non. Ah, ñoom gis nga suñu suñu chef d'état yi. Hmm. nawloowu ñu ñu nekkal. nawloowu ñu ñu nekkal cest à ci waxtaan gis nga ñoom ñëpp ci ñoom. Hmm. leer na ma ni amul kenn ku xam tey tey tey à part njort lu muy def. à part am ci njort ak def mu bàyyi la nga ne ah kon yoon bii la nga mm. continuer ci xoolal suppression post premier ministre mm-hmm. suppression poste premier ministre ñu def élection génn ci mu supprimer poste bi ki nga xam ne moo nekkoon premier ministre nekk premier ministre pendant cinq ans xamuloon ni dañ koy supprimer mu yónni ko ne ko demal wax sénégalais yi ni poste bi amul njëriñ te pourtant yaa ko nekk pendant cinq ans <laughs> nga ñëw taxaw di discours di wax sénégalais yi non bi daf doon tardé liggéey <laughs> c'est vrai c'est réalité c'est fou cest à nekkal mais du président Macky Sall kese de mm. parti yëpp la fu la Idrissa Seck séminaire am bi mu def par parti des mooy bon am na débat yu ci am ci ne nit ñi dañoo ñëwoon xamuñu lu ñuy waxtaanee moom moo ñëw def li muy def et fin de la récréation hmm. nga jël beneen parti tey AFP xamuñu ci lu ñu ne. dëgg la lu dul li Moustapha Niass bëgg am na sax ñuy fippu. Hmm. pour bëgg a nekk waaye comme kilifa gi waxul xamuñu fu ñu jëm. Hmm. amul démocratie. mais suñu structure yi. mooy doxe noonu ki jiite. nawloowul ñi mu àndal amul démocratie interne boo xam ne moo fay nekk. njiit ga. mooy doxal ñeneen ñu mel ni ay Baye tout à fait et c'est le cas mais Baye dans le sens de. loo wax rek yow wax. waaw c'est le cas ci parti parti yëpp quasiment. mais boo yoree nguur day gën a fës. mais mais justement mais euh, léegi conséquences yi mu mën a jur léegi euh, ñu dem suba. président confirmé li ñuy dund yokk boobu effectivement day présenté wu pour une troisième candidature dalal naa fi euh, euh, monsieur Alioune bu yàggul euh, ma posé ko question ne ko est-ce que mën nañ njort ñu repousser élection yi Alioune Tine ne ma ni ma xamee Macky du repousser élection maintenant bu dee dafay maintenir datu élection yi te li ci des mëtatul at ba pare fas yéene présenter wu pour une troisième candidature Euh, quelles seront les conséquences à votre Nicolas luy ndeyu reculer élection je vais parler comme les jeunes hmm. parce que gis nga président bu ñu la falee hmm. liñ la nga njëkk a falee mooy jox nañ la àpp hmm. bis bu ñu la falee ni yàlla di biddee dee soog bi bind sa juddu nguur noonu la bés bu ñu la falee rëddal nañu la àpp parce que mu ngi ci chart bi nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude la ñuy wax c'est-à-dire yow waroo xoolee ba mën a constater ne ah mais xajatu fi nga ne ah moo fi sas non mhm. yow dañu laa fal pour nga xajal ko fi mhm. nga def mu sotti élection yi moom man mu mu débat report non loolu Sénégal dépasé na dépassé na ay retard ay élection léegi bu confirmé nekk candidat ah, ñu maintenir élection yi lan moo mën a nekk conséquences yi non ci réew mi mais xam nga li fi nekk nii tey est-ce que nit sañ naa yeewoo ci réew mi ne dara xew fi mais situation wu tension bi mais Nicolas xoolal li xew bi njoona tuy bal bal réel tuy ak ci ku mën di joge Manifestation de rue à Bignona, un jeune encore tué par balle ce lundi, euh, le lourd tribut de la capitale de Fogny depuis mars 2021. C'est euh, bokk na Nicolas, mm-hmm. Mm-hmm. man am naa droit man citoyen am naa droit di perdre sama sang-froid. Mm-hmm. mais takk der amul droit perdre cent francs parce que loolu moo tax mu nekk takk der hmm. policier gendarme ak leneen man mën naa perdre sama cent francs parce que investir uñu ma responsabilité bi mën naa saalit hmm. mais policier li tax muy nekk policier mooy dafa war a mën a maîtriser situation quelque que soit lu mu demee te li ñu koy njëkk a mooy wattu kaaraange boppam waxuñu la nga saraxa sa bopp hmm. même boo demee ba situation nar a déborder sa rëpp yi dafa am nga xaar ay renfort ay yeneen contenir mais loolu dara gënul neex foog ñu wax ko gis nga démb évidemment je suis obligé de wax la ci France parce que semaine dernière laa fi jóge maa ngi koy wax léegi dañoo nag ci situation bu tendue ci mm. réforme des retraites boo xam ne ni benn président mosu ko faa mën a def saa bu ñu ko bëggee def du sotti manifestation bii nag bii nag président Macron euh, fexe na ba voté nañu ko bon taxañ na loi bi 49 3 loi la boo xamante ne nii boo demee ba bu débat yi metti da nga naan 49 3 laa woo mm. donc adopté nañ loi bi de fait mm-hmm. waaye li muy indi mooy day may opposition ñu def motion de censure motion bi c'est la première fois premier ministre rëcc na mais de peu mm-hmm. démb dañoo toog ba ay 22 heures fii heure Dakar yi nit ñi fàqee fu ne manifestation spontanée mhm. sauvage boo xam ne kenn wootewu ko nit ñi ñoo mer seen mer rek génn mhm. ci mbedd yi mhm. déborder policier mais dafa am loo xam ne da nga ciy kontaan lu nit ñi di manifester di taal di taal ay pneu ay leneen policiers yi li ñu fexe mooy contenir mais vraiment nekkuñu fa di soqi ay bal wala di dóorante wala di toj ay di toj ay moo loolu du cëru force de défense et de sécurité encore une fois du critiquer leen parce que nag kontaan nañu lool ci ñu nekk fi. Mhm. dëgg parce que bu ñu mënee am dal suñu kër sante nañu leen ko mhm. mais seen li nga xam mooy seen cër dañ ko war a jël ba mat sëkk mhm. moomuñu saalit force de défense et de sécurité bu saalitee musiba am. mais xoolal image. on s'arrête sur cette image là. de cette dame bi alkaati bi di dàq atom ba dab ko teel teel téll toj vitre bi. ba pare dafa dem doxee si sax mhm. bu doon sax da koy contrôler wala dara daf oto day waar la oto toj oto bi ba pare mbaxoñe ko ak sa loxo même loolu pour le principe sax dafa ñaaw parce que mënoon na gaañ boppam te jàngaluñ leen loolu moo tax ne mais cette forme de violence gis de plus en plus mais loolu moo tax c'est-à-dire finalement c'est devenu banal waruñu fexe ba banaliser violence parce que xam nga lu muy indi hmm. nit ki day guux guux guux ba fippu kuy bëgg li ñuy wax li wolof di gis nga man bëgguma sax di utiliser ay terme tubaab hmm. li wolof di lépp kuy bëgg a dee wequ hmm. yooyu moo koy indi nga dem ba sës finalement xoolal hmm. ak dee nga yemale parce que pratiquement dee nga ba pare sur cette image là <laughs> pourquoi c'est terrible tu te rends compte que le conducteur c'est une dame duma wax ni jigéen du def naka su dul noonu mais rapport bi suñu société am ci jigéen ak violence boobu nga xam ne moom la alkaati boobu ñëwee ak matrakam teel teel teel et mu mel ni que alkaati boobu amul formation parce que quand toj litre oto technique la de. waaw mais euh, euh, ah, moom doole ji mu demee. Ah, réel réel réel ba pare mais mais c'est une image parmi tant d'autres justement moo tax ma ne euh, en fait finalement dañ koy banaliser parce que dañu ko tàmm gis. peut-être réseaux sociaux yi dañ ko gën a amplifier mais ñun ñaata yoon la ñu am rapport ak des hommes de tenue yoo xam ne ci doxalin beeg ci waxin bi dalay leer ne lii jaarul yoon du jaadu jaaduwul. par rapport ak ni muy waxee ki yow ak ni muy comporté woo mais dalay wan ne moo l'a avec les réseaux sociaux de plus en plus dañuy fësal euh, yenn xeetu dérive yooyu noonu nga xam ne fu mu amee ci réew yu mag yi euh, mooy loolu waaw li ci ciy metti day mujj yàgg euh, bu manifestation amee bu nit ñi di génn di manifester ji alkaati yi ñooy doon seen i noonu day mel ne ñoom la ñuy war a fekk ci mbedd mi pour xeex ak ñoom hmm. alkaati yi itam bu ñu génn day mel ne dañuy dem jàkkaarloo jeeg aw nit ngir xeex ak ñoom te te te lu bu dox ci seen diggante ñoom hmm. man danaay ñëw fii manifestation romb fii ci kër góor gi gaa yi taxaw ku ma àndal dama naan leen ndeysaan ndax dama leen di ñeewante maanaam taxawaay beeg euh, sol say dàll gàddu ay weñ taxaw bëgg a yendoo taxaw ngir aar kaaraange doomu aadama yi waaye yenn image yi bu ko nit ñi di gis day dem ba mujj yàgg yërmande jooju dox suñu diggante ak ñoom maanaam yëg-yëg bi ñu am yëg ne ñun ñoo leen bàyyi ci mbedd mi dañu yëg ne ñun bàyyeetuñu leen ci mbedd mi waaye ñoom léegi euh, jël suñu bakkan moo leen bàyyi ci mbedd mi hmm. te loolu euh, kii la maanaam man na maa wax ne yëg-yëg bu baaxut la li muy jur cim réew maa day taali euh, leneen la man nag des fois sax ma posé question ne xanaa dañ leen a rax bi may dégg lay xew bi ñoo naan ndax hmm. tiire bal tuyu tiire bal tuyu juta dakk da naan ñoom dañoo war a xoolaat ci seen biir bu fekkee dañ leen a rax am ñu leen rax ñu bokkut ci ñoom mm. euh, bu manifestation amee ndax lépp mën naa nekk ci cadre politique ba pare euh, mel na mel na mel na ñu féete ci ñoom te féetewut ci ñoom ñu leen koy jiiñ day jaadu ñoom itam ñuy def maximum possible ci côté boobu ba nga xam ne loolu day dañ mm. léegi nag li Ablaye wax léegi nga xam ne image boobu ñun ñëpp ñoo ko gisandoo fi ki ñëw ci maanaam oto bi toj toj weer bi mm. loolu dañoo gis ñu def ko ab leader politique mu njëkk génn mu génnaat ñu def ko ko léegi day daal di nekk benn saaru xewtu woo xam ne man maa ngi xalaat ne nit mën naa dawal otoom sax ba ci tëli bi alkaati di ko contrôler mu yeex a weeram mu toj weer bi hmm. parce que léegi comme toj weer day bokk sénégalais dañoo mën a toppandoo dañu jàpp ne léegi loolu kon lu war a bokk la léegi voilà maanaam hmm. hmm. naa jël lam yor ni ko ca tëll ndax ñun boo seetloo naka jekk ñu bari ci ñun buñ meree duñu ànd ak seen sago waaye nag dafa am ñoo xam ne niveau bi ñu toll formation loolu lay jariñ boo gisee formation bi ñu naan diw dañ koy defal formation mooy meram politique bañ cee am parparloo mooy bañ a jàkkaarloo kii ne sama adversaire la. waaye tey jii buñ génnoon ñi bokk coalition benn bokk yaakaar ak ñi bokk yeewi askan wi wala passif ñëpp ñoom bu ñu leen di xool ab Sénégalais rek la ñuy gis ñoom. duñ gis ne kii fii la far kii fii la farut damaa war a dóor kii mu daanu kii na dem ñibbi damaa war a protéger kii loolu nekkut cëru police nekkut cëru gendarmerie nekkut cëru armée ñoom seen cër mooy défendre sénégalais yi sénégalais yi itam défendre leen ñoom man man man manaa cofeel googu laa gis ci ñoom damay wax ne boo génnee bitim réew tey boo réeree wala nga jaaxle ci aéroport di puus lu dis ab alkaati mën naa bàyyi la mu jàppoon ñëw puusal la ko boo jaaxlee ba dem laajte ci ko moom mu bàyyi lam doon régler lépp régleel la ko ñun nag bu leen bëggee jàppe ay noonu hmm. ba boo leen romboon ci télé bi sax doo doo leen bëgg a yóbbaale te dangaa waroon a am cawarte am ci ñoom benn cofeel goo xam ne da ngay yëg ne liñ nekk yow lañ ko nekkal ñoom ñoom waruñoo nangu politique def loo leen noonu moo xam armée la moo xam gendarmerie moo xam police waruñoo nangu euh, njiitul réew def loo leen noonu waruñoo nangu kenn def loo leen noonu ndax ñoom réew mi lañ fi nekkal maanaam président Macky Sall mi ngi wax troisième mandat quatrième mandat bu doon dix-huit mandat day xëy jeexal waaye armée du fi jóg police du fi jóg gendarmerie hmm. ñoom jéem a garder loolu ñu am moo ëpp solo fuuf wut ngërëmul ku mën a doon ba mu jar ngay loo xamante ni ni c'est très important te jar de jar nañu ci taxaw gis nga dafa yoo xam ne dañ ñu ko nàndal ba finalement mu doon presque vérité bu fi nekk te teguwu ci dara gis nga yaa ngi wax suñu diggante ak takk der wala ak administration moo mm-hmm. ne administration magistrature par exemple li ñuy wax outrage à agent gis nga loolu lu grave lu doy waar la mm-hmm. gis nga pouvoir boo yor doo ko xeexee mu ngi mel ni yow rajo bii waroo joteek nit di utiliser rajo bi pour xeex ak moom matin mi di soir parce que yow am nga fooy waxee am nga loo ko yàq te moom amul fu mu waxee yow amoo droit utiliser rajo bii micro bi pour xeex ak kooku parce que jote nga ak moom mais de la même façon takk der bi amul droit di utiliser pouvoir bi mu yor pour wan la ni mal pour loolu gis nga outrage à agent mm-hmm. gis nga loolu dañ ko dugal suñu xel mais amul mm-hmm. xam nga lu tax Mbacké Sylla la hmm. sa mécanicien hmm. boo jotee ak moom léegi mën nga wax ba xët hmm. mën nga wax ba xoj ji sori mën ngeen xuloo sib ba nga wax ko wax bu ëpp xam nga du dem fenn genn wàllu loolu wala kaaru loolu boo jotee ak alkaati sañoo ko ko wax léegi la alkaati bi dafa gën mécanicien bi alkaati bi dafa gën mécanicien bi sa jàngalekat mën nga ko wax. Mhm. bu weesoo sanction disciplinaire bi ñu lay def mais doo dem kas doo dem kaso. Mhm. dafa gën jàngalekat bi. Mhm. te alkaati bi moom dañ koo ñoŋal ba yooyu yëpp. kenn sañu ñoŋalu ko moo ko jox boppam. waaw ñoŋaluñu ko moo ko jox boppam. mais ay mais ay ay lois yi da koo protéger ak tenue beeg yu baree bari boo ko defee ñu la outrage la ci moom. bakke bu ma ko defoon mécanicien bi ñaar ñi nga yem. bakke yemale noonu mën nañoo bañ a yem ci loolu. bakke hmm. loi nit a koy appliquer. dëgg la discernement boobu ñoom ñoo ko war a mën a am. ci li ñuy teg nit ñi da ngay jàpp ni rek li nga yor muy pouvoir wala muy puissance mënoo ko utiliser di ko xeexee nit. Hmm. exemple bi gën a terre à terre. Hmm. mooy micro bii mu yor lii moo gën a ñaw lépp. am na fi pourtant. am na fi ay patron média yu doon xeexalee. di hmm. utiliser mais loo ci gis musiba rek lay indi. léegi. Euh, ñu ngeen tudd ñëpp. génnuñu société Sénégal. oui ci société bi lañ jógee. doon tey jot nañ ay formation kii yu ni mel et cetera toujours est-il que ci société bi lañ jógee euh, est-ce que du société bi ci boppam également moo moo. moo formé xeetu nit yooyu finalement. parce que dañ leen di gis ci sphère yëpp léegi euh, ñu bëri di étonné wu alors qu'on ne devrait pas s'étonner finalement c'est notre société qui est ainsi. donc man ce débat là. boo ciy sawar a dugg xam nga la débat boobu lan la. Hmm. c'est le débat de et ne nag ginaar cest à boo nekkee di bëgg a discuter lan moo jiitu hmm. doo régler problème bi constatel nii hmm. ça veut dire lii moo fi nekk te warul nekk mais constat constat boobu yëpp def nañ ko mais constat boobu yëpp def nañ ko moom laa lay wax xam nga li ma bëgg a wax mooy hmm. bu ñu perte temps ci société bi am problème ci ci lan moo ko indi est-ce que politicien bi la wala société bi la

xëccoo ñëpp ne jàmmi réew mi lañu ñu bëgg. Mm. yoon yee wute. Mm. ñun ñett li ñu wax nii. benn la. Mm. cest man dama jël rek raccourci ci ne. bu ñu perte temps. ci ne waa lii la d'abord wala leela nañ jàpp nit feebar bi. gangrène la. nañu ko faj. maintenant c'est vrai que ci faj bi. lu koy faj nag mooy wax. voilà mën nga xool lan ngay njëkkee. mais njëkkee bi nañu faj gis nga boo ko jee société bi faj nga ñëpp mm-hmm. parce que man dama yóbbaale ñëpp ci société bi mm-hmm. alkaati yooyu euh, enseignant boobu mm-hmm. journaliste boobu leneen leneen leneen. Hmm. société bi la boo nee société bi yóbbaale nga ñëpp. Hmm. parce que politicien bi fu mu bokk ci société bi la bokk. Hmm. dëgg la voilà mbaa ki dafa am loo doon yokk foofu en tout feebar la boo xam ne moom. Euh, xanaa kay ku ñu ku ñu dëpput appareil yi. mais dafa mel ne ku ñu ko dëpp ci yow maanaam kuréel goo dem boo ko fa dëppee rek fekk feebar bi gën faa diir. gën faa metti gën faa xóot ba ci. léeg sax nga tudd say këru diine wala nga tudd ñi nga xamante ne dañuy wax ci diine wala dara nga gis des fois ay euh, façon doxalin yoo xamante ne da nga naan xaaroo ko woon ci ñoom mm-hmm. te pourtant foofu mooy laboratoire bi nga xam ne Euh, fa la ñu waroon di di sottee jikko yu baax yi yi defar askan wi bu fekkee foofa ci boppam sax ñu nga mi ngi am ay benn benn ti problème mm. nga bëgg nag euh, robinet bi li muy xel li ndox mi tilim waaye lim sotti si paan gi set wecc loolu da daanaka lu lu xow a mën a nekk lay doon léegi tey politiciens yi bu fekkente ni kilifa ga gën a mag nga xamante ne mën naa dem bët téye ab ministère wala mu nekk ab directeur jombut a génn wax wax joo xamante ne ku dégg da nga naan kii lu tax mu mën a wax lii mm. ab militant buy wax loolu ngir wut ngërëmam nga bëgg koo tere militant bi da am problème moo tax askan wi xaw tuuti ko nga ne caayo ju amul ñoor la wala woppi màggat nga xam ne fépp ay metteendoo léegi nag li Ablaye wax it mm. bu fépp di metteendoo nga ne fépp ay metteendoo dañuy yóbbu ci ñëpp yam mm. bu ñëpp mm-hmm. yamee dootoo faj dara. Mm-hmm. Euh, moo tax lu teew. Euh, fexe ba corriger loolu ba mu tegu ci yoon. Mm-hmm. dana am solo loolu. am na solo jërëjëf sëriñ Mbacke Sylla ak Ablaye Cissé fàttali mbokk yi yéen a ngi ci ndekki li émission naan tey Sud FM première Sénégal ñu ngi en direct sunu ay plateforme digitale est-ce que tu arrives à dire Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé. Ablaye Ablaye ak Laye moo may ah, yóbbaale. voilà Abdoulaye <laughs> Abdoulaye Cissé. Ablaye moom moom mooy benn la Abdoulaye donc. Euh, merci Abdoulaye Cissé kon yéen ñi nekk ci chat bi YouTube rawatina. énormément de réaction ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm su ma xel léegi dafa dem ci suma benn xarit bu jigéen bu baax waaye buy faral di tukki lu bëri ñu toog ci benn restaurant mu ne ma ah, lu tax mu ne ma je ne plus choqué de rien parce que tellement j'ai été choqué il y a des choses daf lay daf lay choqué euh, ci benn niveau boo xam ne bu bu jugee ci yenn xeetu nit yi te xaaroo ko léegi sa vient de partout et tout le temps mu ne ma léegi damaa sonn ci énerve bi léegi damay jël ma yóbbante la ma yóbbante la nee qu'elle ref, refuse de faire comme tout le monde genre ah li yëf yi am non na continuer di énervé di ko bañ hmm. di ko jooy di ko jàmbat non doo dee non non non doo dee <laughs> doo dee mooy loolu doo dee dëkk bi mooy loolu onze léegi politiciens yooyu euh, yooyu hmm. euh, ñoo waral coow lu ci bëri ci euh, réew mi euh, comment ndax nga jàngatee euh, kii wu guerrier bi nga xam ne ñi jiite politique bi kàngam yi ñoom la ñuy lancante à chaque fois on a l'impression que ci benn arène la ñu nekk di di il se il se défie quoi sans arrêt de force de courage de et cetera pendant ce temps askan wi ñoom seen i jafe-jafe ñu ngi fi ba léegi de. waaw Sénégal n'est pas un point d'exclamation sur la planète. voilà cest à Sénégal mënoo ko seppi ci àdduna bi. mais xoolal bi. mais fépp la même chose moo am. amul dara loo xam ne dafa dem bàyyi ñu. cest à li xew Sénégal. moo am xew ci àdduna bi fépp mais ay mutation la yoo xam ne nii. Hmm. da nga koy intégrer avancer mais le discours politique aux États-Unis li fa am la la l'attaque du Capitole. ba hmm. léegi daf leen a ëlëm. Hmm. am na pays yoo xam ne seen yoon nekku ci bu fa xewoon. mais loolu noonu attaque boobu attaque du Capitole ñëw désacraliser le cœur du pouvoir aux États-Unis musu faa am. Mm-hmm. France lu France moom moom fa la raay bi téenee moom. Mm-hmm. ci contestation. Grèce xoolal li fa xewam. Mm-hmm. et le discours il est à la hauteur des pratiques des élites c'est-à-dire ñi jiite. ni ñuy doxalee. ci parfois noot ci parfois yorin wu sellul ci parfois aussi bañ a wekk sa askan moo tax aussi vent mutation yooyu hmm. dafa am fépp la am ñun nag li am day fekk si peut-être li nga doon wax sànq ne askan wi daf leen di raw mais mais ñoom duñ koy yëg mais tellement ñi leen entouré dañu leen di. xalamal am na ñoo xam ne bu ñu daanoo lañuy door a ne non ndekete lii mhm. xewoon na. ci ngay xam li xew ah non ñi la wër kay <laughs> bu ñu demee ba affaire bi déborde leen dañ laa muur mbalaan doo gis dara. bu ñu demee ba affaire bi déborde leen. Hosni Moubarak. Mhm. Hosni Moubarak. wala benn Ali comme Tunisie moo xewoon fan mhm. yii. Ben Ali. waaw xoolal ñooñu. ku xalaatoon. ne ñaari nit danañ ko sañat sax toog di jëw. suñu landa faraso bi landa faraso ci soose mooy suñu ponkal mi mhm. fii à côté yaaya jàmme mhm. nga xam ne daawoo dugg sax van mooy seen mini car yooyu di mhm. dugg oto sax ba tudd turam di tudd turam da nga koy jëw même jëw bi sax bul fexe ñu nànd la parce que ñëpp finalement ay coy la ñu ñëpp ay boole parce que liñ ci jublu mooy ah bu ma boolee ñu jàpp ni man ci ñoom laa bokk régime régime mu noonu lay fonctionner mm. day terroriser nit ñi ba ku nekk fi mu toll nii day ragal ba ku nekk finalement day yoole mm-hmm. régime mu noonu lay fonctionner mais loolu ku yaakaar ni mën nay law ci société yi mm. ak tey éveil bi ni mu demee tey am na régime yoo xam dañuy yéem a dagg internet mais mm-hmm. waaye yow tamit. en yi ngay wax ni de war naa war naa doon bind doon leçon ci képp kuy jàng àdduna ndax ñi nga tudd itam bu dee ne pouvoir la woon ak doole. Hmm. am nañ ko bu dee napp seenu askan ba teg leen loxo bu dut mën a yëngal am nañ ko waaye day mel ne day jékki-jékki rek kiiraay yi naaw euh, aw fi dugg nguur gu war a jeex lu ndaw a koy daaneel. Hmm. moo tax euh, ñaare damay faral di wax ne góorgóorlu ngir sax ci ak pal. Hmm. amul solo li am solo mooy. góorgóorlu ngir bàyyi fi rek. Euh, lu ñu lay fàttalikoo ak mm-hmm. def li nga war a def loolu ñu naan fu mu yem neex mm. nit bu góorgóorloo ba xas ba falu faluwaat mm. daa war a wax ne léegi daal yëf yi fu mu yem neex man li ma war a def dinaa ko def mm-hmm. dem bàyyi fi sama wooy ndax li ma toog nii ñeneen a jóg ma toog mm-hmm. doy na waar euh, laata ñoo jeexal à onze heures et cinquante deux minutes ci ndekki lii ak euh, Ablaye Cissé Ablaye Abdoulaye Cissé Abdoulaye <laughs> bàyyi ma ne Abdoulaye Abdoulaye coow li jeexagul parce que euh, ñu ngi wax waxi justice ñu ngi wax politicien bu war a dem wuyu ci justice euh, ñu ngi wax ne 30 euh, mars defe naa la ñu woote waat et cetera maanaam kon maanaam sénégalais yi nga xam ne saa su ne yu événement yi amee seen fit du dal maanaam ils sont pas encore sortis de l'ornière puisque bu ñuy waree demaat ci yeneen date encore fit yi dootul dal ba léegi naka la ñu war a appréhender loolu war a ñëw yëpp. Nicolas est-ce na tension ambiante bi nekk ci dëkk bi man de xam naa ne am na fu ma waroon dem démb ba jullee gée ba pare. mais dama ko mhm. mujj fomm. dëgg la vraiment. Mhm. et c'est peut-être la première fois mu dal ma parce que aussi du ma wax ni toll nañ dépassé nañ benn du ma wax ni toll nañ ci benn situation mais fagandiku la. Mhm. xam nga li am président Macky Sall ndeysaan dafa réglé lu bari. dafa réglé lu bari ci ay jaar-jaaram. ci ay waxam fàttalikul jamono ndox na fi am kilifa diine boo xam ne waroon na jote ak yoon ñu jàpp ni boroom xët-xët la léegi la mën naa yëngal mbooloo ñu interroger ko moom président de la république spécifiquement ci dossier boobu mhm. mu ne mais da ngeen yaakaar ni bu amee loo xamante ni nii mën naa taal dëkk bi damay seetaan taal dëkk bi non évidemment président de la République mënul seetaan ah benn dossier bu mel nii ma seetaan mu taal dëkk bi dañu ci en dañ ci dañ ci def ndànk daal dañ ci maslaha waaw loolu kay moom rek la na problème yu bëri mm-hmm. mm-hmm. parce que am na loo xam ne tey moo ko moomal boppam de. la dëgg am na loo xam ne gis nga benn kàddu président Macky Sall réglé na lu bari. Mm-hmm. guerre Ukraine bi kan moo ko mën a réglé du Zelensky de Poutine la. nga ne guerre Ukraine. guerre Ukraine bi. Poutine moo ko mën a régler Vladimir Poutine ah, <laughs> moo ko mën a régler bu tegee suuf lépp tegu suuf. Vladimir gis nga ko li àdduna bi yëpp booloo guerre bi mënul jeex. ci ku mu dépendre Vladimir Poutine am na loo xam ne bu ne woon ok bon c'est bon jeex na. président Macky Sall. Hmm. na fàttaliku 2011. gis na les morts de 2011. xam nga moom mu ngi woon ci ku jéggi di xeex. dëgg la mais ci kan lañ ko teg. Hmm. bu ñuy wax mort de 2011. waaw ñoom Mamadou Diop. ñëpp dañ koy tegaat ci Maître Wade ci Abdoulaye Wade. Hmm. parce que moo yoroon nguur gi. Hmm. gis nga boo yoree nguur bu yàqoo. bu yàqoo ci sa loxo. yow la ñuy tudd du ñu wax même boo jàppee ni dafa am ñu ko yàq yow yaa am responsabilité téye ko sàmm ko joxe ko ci anam yu gën yënga ko jëlee donte yow da nga koo jëlee woon. ci fitna même si. daf ko jëlee woon ci fitna ci guerre ci xeex ak leneen ak leneen responsabilité mooy mu transmettre ko ci dal ci jàmm parce que bu yàqoo ci yi nga moment bi nga xam ne moom la ko téye. Mm-hmm. wallaahi ba bu ñuy nettali. Mm-hmm. du ñu wax ni diwa ko yàq. ci loxoom la yàqoo moom moo gën a am intérêt. en fait ça ne veut que day seetaan ñeneen ñuy yàqu mais moom moo gën a am mm-hmm. ñu dalal yëf yi parce que responsabilité la. moom la ko yàlla jox ba fi mu toll nii. responsabilité bi nag taal dëkk bi. Hmm. taal du wax taal dëkk bi parce que man gëw ma ni am na koo xam ne day jóg ne damay taal dëkk bi. Hmm. gisaguma ko. te wax dëgg fa yàlla déggaguma ko ne dem leen taal dëkk bi. interprétation nag day am. Hmm. nit ki ne résistance. résistance mooy. li ngeen ma teg xët-xët yi bëri na. làq doom dóor doom bëri na perception wu bañ a tëddee njaaxaanaay nag sawaay loolu mhm. kenn mënu koo dindi ci xelu nit ñi ah, ci lu bari très def naa loolu leer na euh, mët na sëkk li ci des moom daan ko <laughs> daanu ko mottali incha allah Abdoulaye maa ngi lay sant bu baax di la gërëm c'est toujours un plaisir boo fi jaaree mhm. euh, du ñu doyal euh, waane lu neex du doy <laughs> wéykat bee ko waxoon mais mhm. kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax grand di la bëggee di la sant ak di la gërëm ne ko mu bàyyi ma kontaan nañ kontaan nañ non vraiment baax na ba noppi. bu yàgg waaw on va régler ça voilà kontaan nañ wax dara. merci beaucoup Abdoulaye Cissé merci beaucoup qui était avec nous ce matin. qui nous a fait euh, vraiment honneur. ñëw wuy si ma comme saa su ne bu ma ko yittewoo ñu koy sant bu baax di ko gërëm. Mbacke maa ngi lay sant la gërëm. jërëjëf kontaan naa kontaan naa indil kontaan naa ci bokkam moom plateau. <laughs> jërëjëf waaw jàng nañ merci à l'équipe technique merci à l'équipe digitale merci à vous tous qui étiez très nombreux à nous suivre et très nombreux à réagir à travers les euh, différentes plateformes de Sud FM Sen Radio ndekki lii émission naan iteyi première émission de Sud FM di leen santati di leen gërëmati bu baax a baax a baax café gii nag ngay guux sama café la woon amul suukar bi ni ma guux léegi laa gis ne dafa am suukar te man bëgguma café bu bu ànd ak suukar ndakete yow a ah, am na suukar ah d'accord kon kon yow da nga def sama ñaari café <laughs> suukar man du ma naan suukar. waaw ah, bi moom <laughs> bi moom. kon baax na rek mais café dafa zirik de. <laughs> café gi kon baax na nuru njar soow de. man sama café du ma ci def suukar ma naan. yolom na daal ba mel ni zirik. jërëjëf Abdoulaye Cissé ñi koy sant ñi ko gërëm bu baax a baax merci à tous de nous avoir suivis c'est toujours un plaisir pour moi de vous servir à travers l'émission Leader Ndekili émission nandite surtout n'oubliez jamais viser la lune salut à tous à demain. ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. ndekki li émission nandite yi.